Quelques semaines après l'opération de nettoiement et de désencombrement du marché central de Rufisque, les choses reviennent à la normale. Les vendeurs occupent les lieux. li nga xamante ni euh, amoon ko comme tolof tolof instant bi nii de na bu fekkonte ni à 100 la léegi on est à 90 parce que liñ ñu digoon ni ñu dañuy defaraat marché bi raxas ko ba mu set loolu defal nañ ñu ko ba duggaat nañ suñu marché ci jàmm ak salaam. raxas bi moom am na solo si ñun ñëw nañ raxas ko pompeel ñu ko wax dëgg yàlla ñun tamit ñu ànd ak ñun en tant que suñu association équipe bi ñun tamit ñu def suñu effort. jënd suñuy bale ànd ak ñoom équipe bi yëpp daal bàyyiwuñ leen ñun dañu toppatoo suñu suñu marché. les salubrités euh, regagnent cet espace qui a été nettoyé de fond en comble. dib bi ñu duggee ba léegi ci wàllu mbalit mi lañ am problème parce que boo xoolee mbalit mi euh, jaaykatu jën ñu ngi góorgóorlu bu ñu jaayee ba pare dinañu tonni mbalit mi mais mbalit mi boo ko tonnee te oto bi ñëwul doo am foo ko sotti boo gisee boo génnee ci biti marché bi yëpp mbalit la li waral mooy bu ñu mbalit mi oto bi heure bi muy ñëw day guddi wala boog bu ñëwee tey suba mën naa bañ a léegi nag fi mu nekk nii bu ñu génnee mbalit mi amuñ fu ñu ko teg dañuy wax jaaykat yi dañ leen euh, wax lu ne pour ñuy toxaan mbalit mi mais bu ñu ko tóoree tamit ci buntu marché bi da lañ ko a këpp parce que amuñu fenn foo xam ne fa lañ mi loolu na a nekk problème marché bi ne mooy problème raxasee ba pare bàyyiwaat fi mbalit mi tamit amul benn sens li ñu gënal daal mooy ñu indi ñu ay poubelles yoo xam ne porte yi dañ fay tek ay poubelles yo xamné 3 jours yu nek maire bi yebale fi wala préfet yebale fi ñu lonk ko dem yóbbu ko kon salte bi dina xawa a Le manque de suivi, défaut d'organisation, les causes selon les occupants qui peinent à gérer les ordures faute de moyens. Pourtant, les autorités avaient émis des propositions. Suivi, pas encore, suivi. Parce que je pense que nous avons en plus euh, marché bi buñ ko nettoyé ba pare lu ko dalee marché jën lu ko dalee marché yàpp lu ko dalee marché ganaar dañ dañoon en plus tamit dañuy indi ay jeunes yoo xamante ni tey euh, chaque jour bu marché yàpp wàccee dañ koy bale nettoyé ko mais ba léegi pas encore. waaw mairie bi ñu ak ñoom bi liggéey daf ne woon su liggéey bi pare dañuy utal marché bi ay bunt di ko tëj heure 18 heures fu mu jotee ñu tëj marché bi ñëpp génn parce a tamit mooy marché bi amul bunt jaaykat yi dañ fi nekk ba 22

En ce qui concerne la sécurité et l'éclairage des lieux, les promesses des autorités tardent à se matérialiser selon les vendeurs. wax dëgg yàlla seetaan seetaanu ñu montal ñu ay làmp mais làmp yi tam tàkkagul loolu tam ñi ngi koy xaar ci ñoom. làmp yi tamit bi waxoon nañ ko ak ñoom monté nañ fi làmp boo xoolee projecteur yi mi ngi nii mais buñ ko monté ba léegi tamit waxaguñ ci dara courant bi ba léegi ñëwagul maanaam boo xoolee ay torche la ñuy jël di nit Cette opération de nettoiement et de désencombrement du marché central de Rufisque a été bien appréciée par les acteurs. Néanmoins, le suivi et la matérialisation des engagements restent la préoccupation des commerçants. Si les vendeurs de poissons espèrent plus d'engagement des autorités, les vendeurs de viande sont en attente de la réalisation d'un complexe frigorifique.